إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di dalal jàmm ci keppaaruk weeru koor di suñu fukkeelu daje ak benn ci suñu li ñu déppee sous l'ombre du ramadan ngi sant yàlla bu baax yàlla diggoon nañu ñu woor ñetti fukki fan fukki fan bu jëkk ba jàll na yàll na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko ñaar fukki fan yi nga xam ne moo ci des yàll na yàlla yombal ko ci ñun ca nangul ñu ko barkeelal ñu ko bokk tey nag ci keppaar gi ñu ngi nar a waxtaani mbir boo xam ne moom ah mbir bu ñàng la lool ndax mooy mbiru gëm gi ñu war a gëm àllaaxira yow mi topp waxtaan yi paase xam nga ni ponki ngëm yi juróom benn la mooy ñu gëm yàlla gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm ay yonentam loolu defaloon nañ leen ca benn tënk juróomeel bi nag mooy ñu gëm àllaaxira mbokk gëm àllaaxira mu daa bokk ci li gën a màgg ci gëm kumpa téere bii ñuy jàng soo ubbee suuratul baqara yaa ngi gis suñu borom ni alif laam miim zalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin allazina yuminuuna bilxayb suñu borom mu ne ah téere bii day benn sikk nekku ci ni ci yàlla la jóge mooy yoon bi ñuy ragal yàlla di jaar ñooñu mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa mbokk gëm kumpa loolu benn mbir la buy teqale la nga xam ni moom mooy doomu aadama yi ak ak bàyyuma yi walla doomu aadama yi yor melokaanu bàyyuma mbokk bàyyuma dañ ko limité moom du nekk lu dul xalaat tey ak nu muy def ba tey baax yoonam nekkul ci planifié di xool li fi xewoon ak lii xew ëllëg looloo tax àll boo masa dem fekk fa junniy gaynde junniy ñay doo leen gis mukk ñu nekk naan dañuy prévoir ak a changé waat àll ba déedéet amma doomu aadama la yàlla may moom mu mën a nekk di xalaat li fi xewoon ñu mën ko koo nettali mu xam ko ba gën koo xam sax ña ko fekke woon waaye lii nar a ñëw ëllëg tamit ñu daal di ko koy leeral ba mel ne ku ko fekke ba tey jii ab ab architecte mën na defal benn immeuble bu cent étage boo xam ne xëy na fii dix ans lay pare famille pare sax moom mën nam du ko fekkee waaye ña ko fekkee woon naka architecte ba tëri la woon noonu la tëddee loolu kon mbokk moom mooy gëm la nga xam ne mooy kumpa gëm kumpa googee mu bokk ci àllaaxira mbokk àdduna bi suñu borom yàlla dañu fiy indi ngiree nattuñu loolu doo nga tax mu indi ñu fi tabaraka allazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli cheyin qadir allazi xalaqa almawta walxayaata li yabluwakum ayukum ahsanu amala yàlla moo ñu indi fii ci kaw suuf ngiree nattuñu ana kan mooy topp ay ndigalam ba ëllëgi ki si biir mu teral ko ca àjjanaam yi kawe ya ana kan mooy mooy ay ndigalam ba ëllëg gi si biir mu teg lay ci kawam bañ dugal ko ca mbugalum yàlla mu tarma loolu nag suñu boroom da caa boole woo suñuy xel bokk na ci loolu mën a waaw afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turja'un fa ta'ala allahu almaliku alxaq la ilaha illa huwa rabbul arshi alkarim amu ndax yéen yéeféer yi di ngeen jàpp mooy man dama leen bind kese boyal leen ci kaw suuf ca bi ngeen dellusiwaat ci man ma atte leen ca li nga xam ne moom ngeen di def yàlla day kawe na ci sànk googee mu koy def moom mi borom arash bu màgg bi te it mbokk xam leen ni li ñuy tuddee athéisme pur et dur bi xew suñ jamonoy tey jii loolu musul woon am ci kaw suuf mboolem mbo maas yi mas a jaar ci kaw suuf la ëpp ci ñoom gëmuñu àllaaxira waaye nag boo leen laajee ku bind asamaan yi ak suuf ñu ne yàlla yéen ku leen bind yàlla ku yor wërsëg bi yàlla amma àllaaxira dañ koy weddi suñu borom nag mën a waaw naka laa leen di bindal asamaan ak suuf tàggatal leen lépp lu ci nekk saxara lakum ma fi samawaati ma fi l ardi jamian minhu lépp ma tàggatal leen ko ba pare nag bàyyi leen lu neex waaye rek def duma ko woo duma ko jël mukk atte ko loolee mbokk da ngay gis borom xel du mën a nangu loolu moo tax mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala ñooñu nga xam ne dañoo limité seen mbir yépp di dunduk àdduna borom bi wax ñu seen melokaan ne ñoo bàyyi muy ñoo yem ulaika kal an'am bal hum adal ñoo bàyyi mu yaay yem gën a sànk bàyyi ma ya moom lay wax ne walazina kafaru yatamatta'un wa yaakuluuna kama taakulul an'am wan naaru maswan lahum ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi day dañuy sax di bànneexu comme ni bàyyi may di bànneexu ca moo ne day sawara mooy seen wàccuwaay na am mbokk jullit yéeféer daa gëm ne benn dund la am dund googee jeex na bànneex bu mu ci amul woon dootu ko amati ca doonte ni doomu aadama nag bànneex boo yàgg dootu doon bànneex looloo tax boo demee ci yéeféer ya ñu commencé daa di ne nañu xool bànneexu góor gu war a ànd ak góor ni muy mel ñeeña nañu xool bànneexu jigéen bu war a ànd ak jigéen ni muy mel bañ ca demee ay temps mu sàppi leen ñu ne waaw nañu xool bànneexu ànd ak bàyyuma yi ni muy mel ba mu yàggee sàppi na leen ñu ne waa kon xale yi ndaw yi xamagul dara ay sept ans kii cinq ans nañu xool ñoom it ànd ak ñoom ni muy mel muy pédophilie dem nañ ba ci ndafuk doomu aadama yegg nañ ba lu ñuy tuddee nécrophilie ñoo xam ne dañ ne nañ dem ba xool waa su yëg ab néew bu dee moom naka lay mel loolu lépp mbokk lan moo ko waral mooy ñàkk a gëm àllaaxira jàpp ne yow si lépp àdduna la yem lépp loo bànneexuwul fii bis boo dee perte nga loolee mbokk mooy doxalinu yéeféer looloo tax suñu borom doon ñu wax ñu xeex ak ñoom qaatilu llazina laa yuminuuna billahi wala bilyawmi al axiri wala yuxarrimuuna maa xarama allahu wa rasuluhu wala yadiinuuna diin al xaq xeexlee nag ñi nga xamee ne nii dañoo gëmul yàlla gëmuñu àllaaxira araama luñ lu yàlla araamal araama luñu lu yonent yàlla araamal ndax mbokk yéeféer bu mel noonu xamul damay lor kii ngir conséquence ëllëg lan la ca ragal mooy ba justice du dal sama kaw bu dul looloo lekk alalu jàmbur dana problème ci moom nga gis au niveau des états tey da ngay gis ay états yu mag masal lu mel ne Amérique jàpp na ne ne lu leen neex def ci kaw suuf dem bombarder suñu mbokk irakiens yi sans raison bombarder la nga xam ne nii moom mooy Syrie bombarder la nga xam ne nii moom mooy Libye bombarder feneen Amérique ak ña topp ci gannaawam ci ay tubaab lan moo waral loolu mooy ñàkk suuraale àllaaxira ndax dëkk yooyu yépp pétrole la fa nekk gaz la fa nekk même bu ñuy dem di rey cinquante millions it ca jot ca pétrole ba gaz ba loolu amul problème ñun nañ fexe ba rek suñu dund àdduna gi ñoŋ mbokk loolu may waral loolu mooy bañ a bàyyi xel àllaaxira léegi nag ñu dellu ci jullit bi jullit moom mooy ki gëm ne lépp lu ma def ci lu baax fii pay gaa nga may xaar àllaaxira nu ma ko defee fii rek pay ga mooy gën a kawe gën a neex àllaaxira lépp lu ma def lu bon fii su dee ne yàlla jéggaluma ko mbugal mu ko gën a tar téeméeri yoon mi ngi may xaar àllaaxira ndax mbokk ñaar ñi dañ mën a yem abadan duñ mën a yem kii nga xam ne it dafay gëm ne man kat yàlla tëral na aw yoon yoon woowee mooy naa ko jaamu bu ma ko bokkaareeg dara naa def ak njëkk ci kaw suuf naa yërëm baadoola yi naa dimbali aji ñàkk yi kookee ku mel noonee yàlla dig ko nag aljanna da nga xamee ni nii moom la koy dig ndax ku mel nii dana yem ak ku jëkk ka déedéet moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni zuyina linnaasi xubbu shahawaati min annisa walbanina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب سني بروم موني نيت ني داي taaral nañ leen bànneexu soxna yi soxna yi taaral nañ leen bànneexu bari ak jur taaral nañ leen bànneexu am ay compte bancaire yu fees del taaral nañ leen am ay fas yoo xam ne ni yu taaru la taaral nañ leen ay jardin yoo xam ne yu tànn loola waaye borom bi ne lii lépp nag mi ngi yem ci bànneexu dundug àdduna amma ñi nga xam ne dañoo jaar fa neex yàlla dana leen ñeel gën jaare fa ca delluwaay moo tax borom bi jàll wa ala di wax naan qul afa unabbiukum bi xayrin min zalik lilazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min taxtiha al anhaar xaalidina fiha wa azwaaju mutahara wa ridwanun min allah wallahu basirun bil ibad suñu borom mu ne ay yow borom xel kaay ma wax la lu dàq nga dajale woon mille miss monde ñu nekk sa palais nga dajale des milliards et des milliards de dollars nga dajale lu la neex ci ay jardin ak i tool xamal ne la ko gën mooy nga fexe ba daal di tabbi aljanna aljanna joojee nga xam ne yàlla nga ko jagleel allazina yaquluuna rabbana amanna faghfir lana zunubana wa qina azab annar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسفار àddina jooju nga xam ne yàlla nga ko jagleel ñi nga xam ne dañ ne ay yàlla ñun day gëm nañu la gëm nañu àllaaxira am na yàlla nañu musal ci mbugalum sawara mooy ñi nga xam ne dañuy muñ mooy ñi nga xam ne dañuy dëggu mooy ñi nga xam ne dañuy toroxlul yàlla ca lañu am ñu cay dépensé bu fajaree ña ngay jéggulu seen bakkaar ma ndax man ngaa def comparaison ci jullit bi mel nii gëm àllaaxira toroxlul yàlla yaakaar payug àllaaxira ragal mbugalum àllaaxira ndax kii des na ko mën a comparer ki nga xam ne jàpp ne ni ak dund daal fii la yem loo bànneexuwul fii perte nga ko koo mënu duma fii it noggatu ko bu la état dalul sa kaw moom amul problème ndax àllaaxira amul mbokk xam nañ ne yii ku leen doon comparer abadan duñu mën a nekk mukk loo xamee ne nii lu yem la looloo tax suñu borom yàlla tagg xeetul islaam ne leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéenay xeet bi gën bu ñu mas a génneel nit ñi lu waral loolu mooy taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah yéenay xeet bi gën ci xeet yi ndax da ngeen di digle lu baax ca lu baax mbokk mooy jaamu yàlla buñ ko bokkaaleeg dara def njëkk ci jaami yàlla yi da ngeen di diglu lu baax da ngeen di tere lu bon tere lu bon la ca jiitu mbokk mooy bokkaale ak bakkaar yu mag ya ak it la nga xam ne mooy tooñ jaami yàlla yi lii lépp la ngeen boole ci gëm yàlla mbokk da ngay gis ne kon kii nga xam ne moom gëm na lii damay def mu def ko ngir yàlla du yem ak nga xam ne moom yàlla mooy bànneexu bakkanam moo tax suñu borom ne afara'ayta allazi ittaxaza ilaahahu hawaahu wa adallahu llahu ala ilm xoolal ki nga xam ne yàlla mooy bànneexu bakkanam lu ko bànneex ba bakkan ba woo dal ci la jëm ndax mbokk dana yem ak jaam bi diggal boroomam xam ne moom day rendre compte ci lépp luñ ko sant luñ ci def ko day rendre compte ci lépp luñ ko tere mu def ko mbokk lii mënuñu yem moo tax suñu borom mu ne afa naj'alul muttaqiina kal fujjaar ndax ñu nit daañ yemele ñi ragal yàlla ak ñi nga xam ne nii ay kàccoor la ñuy topp seeni bànneex mi ngi noonu mbokk jullit la nga xam ne mooy gëm lii di allaxira nañ xam ni mooy nga gëm allaxira fa muy commencé ak fa ñuy teere ji mbokk diggante nit ki ak tabbi aljanna wala nit ki ak tabbi sawara dana am juróom ñaari étape yoo xam ne dana fa jaar dooga nag dal fa muy dale ji étape bu njëkk bi mbokk mooy étape bu sukuraat étape bu sukuraat boobu junjoon nañ leen ko ba ñuy waxtaan ak yéen malaaka ya amul benn doomu aadama buy faatu lu dul day sukuraat wa jaat sakratul mawti bil xaq zalika ma kunta minhu taxiid suñu borom nee na lii di mandite ci dee ca mooy doomu aadama bi boo demee hôpital kee ngay jàmbat nopp kee bët kee bakkan kee biir kee xol ila axiri amma sakaratul mawt moom mooy yaram bi yépp ànd man di ci metit ba buñ ñëwoon waa ji fuy metti xamu ko ndax léppay metteendoo loolee mbokk doon lu tar gannaaw ba nag la suñu borom yàlla yónne ay malaaka yu tedd comme nañ ko waxee woon rek ba ñuy wax malaaka yi malaaka yépp a tedd waaye maa ngi ca namm malaaka yu taaru ñu ñëw wër la dalal la tagg la félicité la naxante ak yow ba rocc sa ruux mi ngi noonu doog koo jël yóbbu fa neex borom bi subhanahu wa taala yow mi déglu woon état bu malaaka ya malaaka yi dañ ànd ak moom asamaan bu mu romb ña fa nekk ànd ak moom ànd ak moom ànd ak moom bañ dem ci asamaanu juróom-ñaar suñu borom ne leen nag delloo leen ko ci suuf loolu mbokk moom mooy étape bi jëkk ca loolu bu ñu la waxoon lan mooy gëm àllaaxira mooy danga naan gëm lépp lu nekk ci gannaaw de loolu nag mbokk étape boobu lu ci bëri dee bettee mën naa bett nit ki ci salle de bain mën naa bett nit ki ci kaw autoroute mën na bett nit ki xatta wallahi am nañ ay témoignage yoo xamee ni nii mi ngi leen betti ci seen kaw soxna loolee di mbir bu doy waar bal am na koo xame ni nii nettali na ma ko moom it koo tànki caaxaan yam doon dox ca kër góorub jàmbur fa la ko yàlla subhanahu wa taala moomee mi ngi noonu loolu kon njëlbeenu gëm étape yowmal qiyaama mooy tiitaange bi ñu war a tiit ci ne fan la ñuy deeyee ndax yow xamoo fan la xamoo naka la ca xamoo kañ la ñett yëpp xamoo ci dara xamoo kañ lay doon xamoo fan lay nekke xamoo naka lay nekkee su ko defee kon ki gëm alaxira ca xam ne doomu aadama bi li nga deeyee ci la la yàlla subhanahu wa taala di attee war ngaa moytu moo tax boroom xam-xam yu jëkk ya bakkaar lu bon la waaye lañ daan gën a ragal du bakkaar ndax bàkkaar moom lu mu rëy rëy boo ko tubee yàlla baal la lañ daan gën a ragal mooy mujj gu ñaaw suul xaatima lan mooy mujj gu ñaaw ndax mooy kii train dër mu tasaaroo déedéet mujj gu ñaaw mooy nga deeyaale merum yàlla jalla wa ala yal na yàlla musal ñu ci loolu loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax amma koo ko deeyaale merum yàlla waxoon nañ leen naka la malaaka yi di jëflanteeg moom buñ ñëwee roox ga dana tiit tasaaroo ci yaram bi daañ ko dóor dóor yu metti ak seen bolde ya doonte ne ña ko wër ñoom xamuñu lu xew comme na ko yàlla waxe walakin laa tubsirun mi ngi noonu du ngeen xam lu xew gannaaw ba ñu rocc ruuxam gu salte googee xasaw googee asamaan bu ñu romb ñu rëbb ko muulu ko ba baa ñu koy suñu borom di jox ndigal ne delloo leen ma ko ci kaw suuf mbokk lii mooy njëlbeenu étape bi ñu war a gëm ca la nga xam ne mooy état bu gëm laaxira ñaareelu étape bi nga xam ne nii moo dox suñu diggante ak nit ñiy tabbi aljanna wala nit ñiy tabbi sawara mbokk moom mooy la nga xam ne mooy bàmmeel mbokk bàmmeel waxoon naa leen ca ba may wax ak yéen ca malaaka ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari woon na di ñaan yàlla a'uuzu bika min azaabil qabr ay yàlla maa ngi ñaan nga musal ma ci mbugalum qabru daana wax kenn ci yéen buy julli ba taaya ba pare ngalawaay bu mu fa jóg mukk ca waxul balaa sëlmal allahuma inni auzu bika min azabi jahannam wa min azabi alqabr ba xadis ba jeex ay yàlla yal nag ma musal ci mbëgalum sawara yal nag ma musal ci mbëgalum bàmmeel bàmmeel boobu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xamal ñu ne alqubuuru rawdatun min riyaadil janna aw xufratun min xufari naar xam leen ni képp koo xamee ni nii suul nañ ko ba pare bàmmeelam ba day day mujj nekk jardin ci jardin àjjana yi yàlla yaatalal ko ko fa ay bëtam yem taaralal ko ko xeetu àjjana yi di ñëw comme nañ leen ko waxe woon ci waxtaan yi nga xam ne nii démb rek paase na ci laaj yi ñu lay laaj ci bàmmeel amma saay-saay bi biir barzaq ca bàmmeelam lañ koy commencé di mbugal mbugal yu tar avant muy tabbi ji sawara suñ borom yàlla jox ñu ci benn échantillon mu ne wa xaaqa bi ali firawna suu al azab annaaru yuraduuna alayha guduwan wa ashiya wa yowma taqumu saatu adxilu ala firawna ashadd al azab suñu borom yàlla nee na firaw naa ki notaabalam day bañ jaarul fa ko soob nee na mbugal mu tar yàlla dogal na ko ci ñoom ca mooy fa ñu nekk ca barzaq firaw na mag ko ba mu faatoog léegi ëpp na trois mille ans waaye suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na suba gu nekk bokk na ci altinati ji di fukkee lu fan ak benn ci chahru ramadan malaaka yi jël nañ firawna ak ña mel ne firawna ubbi buntu sawara yi shajari ya takk ñëw lakk leen mbugal leen ñu bàyyi leen bu ngoon jotee ñu yóbbuwaat leen ubbi shajari yi ñu lakk leen mbugal leen ba baan ak yowmal qiyaama ñu leen fay doog a dugal mbokk lii ñu bàyyi ci xel bu baax ci gëm gi ñu war a gëm la nga xam ni moom mooy état bu bàmmeel boobu nga xam ni ñu nekk ci biir bàmmeel ya wallahi dara gunte wóora di jël sa baay yóbbu suul jël sa ndey yóbbu suul xamoo lu mu nekke nga ñëw nag bâche say bâche indi say chaise rendi say nag taal say cin ñépp di waxtaan ak naan yu sedd mbokk loolu xol bu wow ak ñàkk xam borom bi rek mooy waral loolu waaye képp koo xamee ne nii day wallahi xam na dëgg-dëgg xam dana fàttali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam doon wax mu ne su ma bañul woon allah tadaafanu su ma bañul woon ba jullit ndeyam dee mënu du ko suul baayam dee mënu du ko suul kon doon naa ñaan yàlla mu dégtal leen mbugal ak yuuxu ya nga xam ne muy jóge ci bàmmeel yi waaye damaa ragal bu ngeen ko déggoon da ngeen dem ba du ngeen suurati seeni wayjur mbokk bàmmeel li nga noonu doon lu ñàng lool ku nekk ci ñun war a xalaat naka lay fanaani guddeem yu jëkk ci biir bàmmeel mbokk am na ñoo xamee ne nii heure bu ñu duggee bàmmeel di ay yéeféer dañ leen di mbugal ba baa bis penc di taxaw am na ñu ñu fay mbugal un an am na ñu ñu fay mbugal un mois am na ñu ñu fay mbugal une semaine am na ñu ñu fay mbugal ñetti guddi yu jëkk ya am na ñu ñuy mbugal guddi gu jëkk ga loolu lépp mi ngi dépendre ci naka nga meloon digganteeg sa boroom avant ngay wàcc bàmmeel looloo tax ba ku nekk ci ñun war a bàyyi xel la woykat ba doon wax rek mu ne ay yow ndawal ndaw li yàlla ubbil àdduna xamal ne bu doon dangaa dund ci kaw suuf junniy at musoo feebar musoo jaaxle guddi yaa ngi bànneexu ak bëccëg loolu lépp lépp bis boo nee cëpp guddi ga nga jëkk fanaan ci bàmmeel dana la ko fàtteloo lii di mbir yoo xamee ne nii mbokk képp kuy xalaat alaxira la nga war a jëkk a xalaat mooy étape bu ñàng boobee nga xam ne nii moom mooy état bu bàmmeel yonent bi alei salaam nee na lépp lu xew ci àdduna lu ñàng nee na yàlla won na ko ko waaye amul lu ci gën a ñàng bàmmeel ca mbokk xoolal tey jii lañ gis doomu aadama yi di dóor ay bomb ay ville entière tasaaroo yaram yi tasaaroo ah daggatoo nit ñi di dee comme ay weñ waaye yonent bi alayhi salaam nee ne loolu lépp day la ko gën a ñàng mooy bàmmeel yal na yàlla musal ñu ci mbugalum bàmmeel donte ni mbokk julit ak yomba comprendre la nga xamee ni nii mooy mbugalum bàmmeel ci yow mi nga xam ne yaa ngi bàyyi xel say gént wallahi sama benn mbokk inspecteur Samb mi ngi may nettali a benn waay boo xamee ne nii kiy tëddoon ak moom daa toog dégg ko muy yuuxu di yuuxu mu fëgg ko mu jóg yeewu bi mu yeewoo toog laa ilaha illallah laa ilaha illallah mu ne ko lan la mu ne man day damaa gént dee maa ngi gént ñu yenu ma yóbbam ba ca armeel ya ba suul ma gannaaw ba rek ma daal di gis ay yet di dal sama kaw ndilli ndilli ndilli ndilli naan ma yow lu tax daawoo julli lu tax daawoo julli nee na gannaaw balaa yeewu waa ji bis na ki keroog la commencé di julli di julli babaa a insha allah yàlla dajeeg boroomam loolee mbokk benn misaal la ca beneen mbokk ngi bu ñuy wax Lamine Diop nettali na ma ci koo xam ne jege ñaaleem la daa tëdd guddi gént fekk mi ngi bokkoon moom ca ña nga xam ne seen diine dañoo jàpp ni julli bokku ca nee na mu gis benn pax buy rëya rëya rëy am benn caterpillar mi ngi ñëw ci benn mbooloo di sëq rek di sànn ci paxum sawara mi di sëq di sànn ci paxum sawara mi mu daal dina waaw ñii luñ def ñu ne ko ñii ñooy ñi daawul julli ci kaw suuf mu tiit ci ay nelawam avant fajar la dem fëgg seen imaam imaam kat dimbali ma damay watu bis na tey damay commencé julli loolee xabaar ba ba mu demee ba ca ka nga xamee ni nii moom la joxoon ay mbiram ne dana ko gàddul julleeme ki kooram ak yépp koo koy dégg ko ñëw ci dëkk ba na ko waaw diw man day damaa dégg ñu ne da ngay julli mu ne ko ah kay mu ne ko waa la nga fasante woon ak man nag mu ne loolu damaa ko waxoon waaye waqet waaye daal fas yéenee tuuma bàyyi julli ba baa may dajeeg sama boroom loolee mbokk ci gént la jóge ci ñoo xam ne ñàkk a wax dama leen a xam tuddal leen seeni tur amma bu dee da ngaa dellu ci histoire wallahi xatta ci makka da ngay gis ne ci jamonoy bun baaz am na ci ay ñu témoignage gaa yi garde ay xabru gis ay xabru yoo xam ne guddi dañuy takk jëppit bañ ñëwee wax ko cheikh bun baaz lay wax seeni mbokk ñuy ñëw di leen génneel ay sarax génneel ay sarax ba loolee dañ la nga xamee ne mooy témoignage yu bëri ci loolu rawatina yow ndaw jàngkat ngallaawaay am na benn téere bu ñuy wax kitaabu ruux bi ibnul qayyim al jawzi boo fa delloo da nga gis lu yéeme ci loo xam ne ay nit ñoo ci teg seen bët ci mbugal buy am ci biir bàmmeel imma ca la nga xamee ne nii dafa nekk ci jëmm yi ñu koy gis wala effet yuy génn ca kaw bàmmeel ba bi nga xamee ni nii moom laa ci mujje mooy benn waay bu ñuy wax Muhammad Lamine ma nga ñu suul ca armeelu yoof moom day nettali na ma koo xamee ni nii benn duwaañi la woon nee na ba ñu demee di suul ab mbokkam ah lii di kalpeem wadd ca biir xabru ba muy mbokkam duwaañeem nee na ba mu demee gas xabru ba puree xool ab kalpeem la fekk ñu seena baat ba seena ay loxoom loolee daanaa ko digg omo ci woon ay preuve baba moom mu wax ma ka nga xam ne moom la daloon moo tax ma nettali ko firiwul nag ne duwaañee dafa bon duwaañeeg ñépp a yem waaye day nekk bunt bu dangereux ndax lekk alali jàmbur ci neen yomb na duwaañi tuur rangooñu asgor yomb na duwaañi waaye képp ko ca sellal jub jaar fa nga xamee ni nii du ca lor kenn kooku it dañuy gis moog liggéey yépp a yem mbokk jurit lii day moom lañ leen wax di échantillon yoo xam ne yàlla won na ko doomu aadama yi mu jóge ci ñi nga xam ne dañoo nekk ci biiri bàmmeel mbokk mi ngi noonu ñun ñépp nañu ànd ñaan yàlla yal nañu yàlla musal ci mbugalum bàmmeel demal ci ku la jege mu bindal la soo taayaa ba julli ci yonent bi la ngay jëkk a wax allahumma inni a'uuzu bika min azaabi jahannam wa min azaabi alqabr ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال يلا يلا نغ مسل ci mbeugulum jahannam musal ma ci mbëggalum xabru musal ma ci fitnay dund ak fitnay dee musal ma ci fitnay masixi dajjal nga koy wax ci biir julli gi ci arab su dee ne mënuloo ko it foo sëlmale ngalla waay ñaan gu am solo googee ñaan ko kon mbokk ci keppaar gi ñi nga ñaan ay yàlla suñu boroom yàlla nag ñu musal ci mbëggalum bàmmeel yàlla nag ñu musal ci bëggalu àdduna ak alaxira yàlla nag ñu may aafiya fi dunia wal axira feebar bii tax ñu toog fii ci keppaar gi tey jii ca waroon a toog ca jàkka ja di jàng sab téere yàlla yàlla nag ñu ko teggil ci jàmm yàlla nag ñu ko teggil ci aafiya ci sa njéggal ak sa yërmande ca mbooleem conséquence yu ca juddoo woon doon loo xam ne nii lu metti la yàlla nag ñu ko wuutalal lu gën ci sa ngëneel yu yaatu yi mbokk jurit mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh